Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social en charge des relations avec les institutions, chers collaborateurs des ministres, très honorables collègues, Assalamu alaikum. Monsieur le ministre, maa ngi renouveler samay félicitation si sa reconduction. Nga may dans votre délégation mes frères et sœurs de Mbour Tening Saliou le directeur du COSEC également maa ngi koy nuyu et le directeur du pour autonome de Dakar monsieur le ministre euh, tey ñu ngi ñëw di caytu li nga xam ne moom mooy sa votu budget euh, ministère nga yor nag ministère boo xam ne ministère bu am solo la ñun nag ay ay mool lañu monsieur le ministre tey ku wax secteur de la pêche jàpp naa ne l'acteur principal mooy mool bi monsieur le ministre mool boobu moo nekk au cœur même de cette activité monsieur le ministre mool bi tey ku ne xam na ne amul beneen métier bu dul napp loolu moo tax monsieur le ministre ma bëggoon a xam ak jafe-jafe yi am ci secteur bi lan nga teg pour vraiment accompagner pêcheur bi nga xam ne mu ngi ci jafe-jafe yu baree baree bare naam nag du ñu fàtte li président de la république def ci secteur bi yépp duma ko mën a lim ndax temps bi mayuma ko monsieur le ministre bëggoon ñu waxtaan ci wàllu euh, euh, CLPA yi muy les comités locaux euh, pour la pêche artisanale monsieur le ministre nga xam ne 41 lañ ñu ngi def benn bénévolat te yéen la ñuy liggéeyal yéen état bi lan ngeen nar a teg pour accompagner parce que ñoom ñu ngi ci réunion yi ñu ngi ci terrain bi également ils ont fait une rencontre ba def nañ mémorandum bu ñu la jox jour bi nga xam ne moom la ñu loon li nga xam ne moom mooy bésu napp monsieur le ministre ma bëgg ñu waxtaan ci repos biologique est-ce que tey jotul ñu harmoniser li nga xamante ne mooy sa repos la muy pêche artisanale bi ak pêche industrielle bi ñu bokk même date yi ñuy def sa repos la parce que c'est important ndax ñu ngi wax wàllum rareté de la ressource monsieur le ministre tey jii président de la république dafa jëloon ndogal bu am solo ne dañuy jël suñu gaal yi ñu am nga xam ne mooy gaalu cosaan ñu remplacer ko par les fibres de verre tey jii xam nga ne contexte bi ñu toll il faut que aussi ñu actualiser loolu parce que jàpp naa ne sunu gaal yu yàgg yooyu dañ ko war a remplacer ak ay bateau ça nous permettra ak convention bilatérale yi ngeen am avec les autres pays sunu mool yi man di napp ji ba ay Angola ay Libéria ak yeneen yeneen i dëkk xalaat leen ci monsieur le ministre monsieur le ministre beneen bi mooy par rapport ak l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz est-ce que tey état du Sénégal jël na ay matuwaay pour préparer lu parce que jàpp naa ne nëgëm ay conflits ñu ngi koy noté ci secteur bi tey l'exploitation prochaine du gaz et du pétrole mën na jur yeneen conflit entre secteur boobu ak secteur bi nga xam ne mooy secteur de la pêche monsieur le ministre ñu daan wax diisoo ak baykat yi diisoo ak nappkat yi mais monsieur le ministre kaña président de la république di toog ak sama mbokk mooy ak toute la chaîne de valeur il faudra monsieur le ministre président de la république toog ak acteurs yi parce que waxtaan si la lépp di juddoo jàpp naa ne loolu urgence la tey ñu def les assises de la pêche mais président de la république ak euh, recevoir ñi nga xam ne ñooy acteur secteur bi monsieur le ministre mu amoon jafe-jafe yu fi amoon jamono yi ñu génn ci wàllu suñu mbokk gendar yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk mbooro ak Kayaar nga dem fa état bi accompagner leen ci jafe-jafe yooyu monsieur le ministre waxtaan boobu fan la toll parce que bëgguñu lu mel noonu xewaat ci biir suñu njaboot te yow yaa njaboote secteur bi yëpp may laaj monsieur le ministre aide bi nga waxoon da ngeen koy jàppalee ñooñu fan ngeen ci toll parce que jàpp naa ne lu war a mën a am la leneen lii monsieur le ministre des finances yaa ko moom mooy par rapport euh, au fonds de calamité yi nga xam ne euh, mën nañ wax ne prise en charge la ci ñi nga xam ne mooy mool yi ren ji ñaata nga leen nattal tey it jafe-jafe yi ñu noté ci secteur bi est-ce que instant bi mën nañu wax ne état bi jàppale na lii ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci secteur bi rawatina les pêcheurs je vous remercie monsieur le président